إلا لا شيخ لا إله إلا لا شيخ لا إله إلا لا ya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah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 Amen Hey! ak moom ci barkeb Seydina Ibrahima barkeb bis bi ak borom bis bi barkeb ki ñu tuddee bis bi barkeb jëf jël barkeb Seydina Ibrahima ala alhaaj alamin sayidina shafiina alkarim xayr kullu xalqin ahmad alayhi salli suma sallim sarmada muhammadu rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam assalaamu aleykum asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi fi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar ci turi ki woote jotaay bi muy sëñ Cheikh Khadim Fall mu mel ni lu sëñ Tuubaa da wax rafaxaani ila l binaani llahu bika wa la ilaha illa allah baat boobu nga xam ne moo tax a jóg ku jóg cay leeral lu jógee ci yàlla la ko dalee ci sayyidina Muhammad rasulullah alayhi salaam taxaw taxawaay mursal yeeg nabi yu mursal yëpp ba kii taxaw ci ëttu rasulillah liggéeyal yàlla lu ko kenn liggéeyut nangul yàlla lu kenn nangul ba yàlla yëkkati diina ji teg ci loxoom Cheikhul Khadim jaww ñam bii nga xam ne tey. muy bunt ci yooni Seexul Xadiim muy Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiina baat boobu moo waral taxaw tax wooteeg Serigne Cheikh Khady Fall Serigne bi nag sëñ Cheikh Khadim sa jot war rafet sa xel war naa dal ngir kuy woote yàlla ci ëttu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di jëmmal liggéey Cheikhul Khadim Cheikh ba waa kër Xaadimal Moustapha teew fi ànd fa ak say mbokk ñu siyaare Cheikh Momadou Fall ibn sëñ mu Fall sëñ Chouaïbou Mbacké ibn Xaadimal nga xam ne bi ñu ko tuddee tudd nañ ko lépp loo xam ne bokk nga ci maamaram bokk nga ci bépp Cheikhu Cheikhul Xadim sëñ Cheikh say bokk tamit teew nañ fi sëñ Cheikh Fall Ganaar mu sëriñ Modou Moustapha Fall sëriñ Abdou Sakkoor Fall mu sëriñ Assane Fall sëriñ Moustapha ibn sëriñ Abdou Sakkoor sëriñ Cheikh Binta Fall ak waa kër Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina yëpp kon képp koo xam ne tey taalibe sa xel xol sedd na ci jotaay bi nga xam ne ñu ngi koy jëmale Cheikh Ibrahima Fall Baabul Muridiin la Serigne Touba waxoon defe naa kenn ku nekk bàyyi na ci xel mun na ko fàttali Serigne Touba dafa waxoon ne ak loo mën a dégg ak loo mën a gis Cheikh la Fall raw la Cheikh la Fall raw kon ndax tam lay ni bis bii tey bésu cant la di bésu yokk ñoo sëñ Mouhamadou Lamine Bara yi mu fas yéene waxtaanee li nga xam ne bu baax mos nañoo wax loo xam ne ca njaareem muy sëñ Mor Mbaye Cissé bu njaareem mos nañoo wax ne lu waaye am ci kaw suuf te yàlla may ko tawfiix mu gëm baatu laa ilaha illallah sayyidina muhammadan rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam lu dul loolu du gëstoo lu mu am ca loxoom ak lu mu mun a bari du gëstoo gis yéefar bu ko ko ëppale kon loolu mooy seere ne lay wutale ci li yàlla bind muy doomu aadama lu mu doon la lay doy tawfiix mu wiir la am nga càlla la fa yàlla mooy gëm nga xam ne gëm nga fa yàlla te fas yéene nekk ak jaamam te di ko nangu ci gëm googu la sëñ Bara fas yéene waxtaanee ngir gëm yàlla baax na lool waaye nag li gëm yàlla dafa am lu ko jiitu mooy xam lu tax nga gëm sa xam nooy jaamoo sa ngir xam-xam moo jiitu gëm yàlla doo gëmee suñu borom lu muy yëpp ca jëfoo ko feeñul ci yow. iman nga lu muy rëy rëy ci islam taxawu mën a seer ne ko gëm yàlla waaye gëm yàlla gi lu muy rëy rëy te loo ko mën a jaam te sellaloo te dënguwoo na la leer ne buur yàlla bu mun a doon doo amee cër ci kilifa ku mën kilifa nangoo la ko tax a jóg la ko may nangu googu nag bu wóor bu wóor bu Cheikh Rafal daabul mu di da nangul Cheikhul Xadim lu am sëriñ Bamba boobu ko may yal nañu yàlla may tawfiq nag xamal ne gëm yàlla lu muy riiriiri lay seere dëgg di gëm yàlla di wóor na ci wir na nekk na ci yow mu ngi feeñ ci bëgg ak nangu nga xam ne def nga ko ngir bëgg mooy seere dëgg dëgg ngëm yàlla ngëm boobu ak bëgg fas da ko waxtaane ca xam ne tamit de jaam lu muy liggéeyal boromam te tënkuwul ci ndigal rawatina nag taalibu Cheikhul Khadim na ko leer ne mënta jëriñu ca la muy liggéey kon baatum ndigal woowu sartum ndigal googu ak ku ko war a jox ak liñ ko kuñ ko war a jox te kiñ koy jox kat tamit nan lay jëriñoo loolu la incha allah Cheikh Modou Lamine Bara Touré fas yéene waxtaan ak mbokki taalibe yëpp. ci biir waxtaan bi yi nga xam ne tamit Cheikh Modou Lamine Bara Touré war na ko waxtaanee. dina taataan lu bari bañ mun a xam nag dëgg-dëgg kuy Cheikh Ibrahima Fall ngir coow li bari na wax yi bari na woote yi bari na waaye nag kenn ku ne xam ne ki liggéeyal Rasulillahi lu ko kenn liggéeyut du jëlee bunta fa teg fa jawriñ bi indi Cheikh Ibrahima Fall na ko leer ne gisul ci moom lu dul yàlla yi kese deful ci moom lu dul yàlla yi kese kon képp koo xam ne. fas na yéen liggéeyal Cheikhul Khadim ci jëwriñu mu tedd foofu Cheikh Ibrahima Fall na bàyyi xel ci li nga xam ne Cheikh Ibrahima Fall yëkkati na ko te tey fii ki fi toogoon ñëpp ñu ngi ko yëkkati mooy lan laa ilaha illa allah sayidina muhammadan rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam kon leer na ne léppi Cheikh Ibrahima Fall Cheikhul Khadim léppi Cheikhul Khadim nabil Moustapha alayhi salaam foo bokk ci caaxaan bokk ci leneen luñ ciy tudd mënu ko caaf kon nañ delloo njukkal Cheikh Ibra Fall nañ santaat yàlla ci Cheikh Ibra Fall lim ñu wane li ñuy jëriñoo ci kër Cheikh Ibra ba Cheikh Maodo Fall mi nga xam ne kon ba nga xam ne ne Cheikh Ibra Fall wax na ko Mbàkke bu ñu fàtte defe naa ba yëkkatee sooroon ba bay jiite jumaa Tuubaa Lamp Fall Baabul Muridiina la ñu fa bëri asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëñ Bara dafa bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bismillahi rahmani rahim barke Cheikh Bati asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf sëriñ Modou Niang noo ngi lay sant bu baax ci seet participation bi ci bis bi wax ji rafet na lool te tënk am na solo lool itam te dara jëlum sëriñ kon noo ngi nuyu tàmbalee suñu nuyoo ci nga xam ne moo jiite yoonu murid tey gi sëriñ Sidi Muxtaar xafisahullahu wa raahu wa nasarahu wa ayyadahu ak mboolem njabootu Cheikhul Khadim di nuyu njabootu Cheikhul Khadim moom Sëriñ Shuaybu moom Cheikhul Xalim radiallahu taala anhum ajmain ñu ngi koy nuyu moom Sëriñ Fallu moom Sëriñ Shuaybu di ko di ko ziar di ko tatagal di ko jox wàccu waayam muy ko baax koo xam ne wax dëgg yàlla dafa teg tànkam ci siraat mustaqim di dox ci àll bi di yaatal liggéeyu Cheikhul Xadim di nuyu itam bokkam yi mu àndal soxna may aboomu Sëriñ Shuaybu ñu ngi ko fi dégg ak soxna maam bu suma Cheikh ñu ngi leen di nuyu baax di leen sant di leen gërëm xamal rek ne ñoom ñoo fi nekk ndax lépp lépp Serigne Touba lépp seen maam seen wajur yu selle yi ñoo fi nekkoon ak seen bàjjen yu selle yi nekkatuñ fi ñoom ñoo kon lépp lu war ci worma fonk leen ak teral leen loolu day yàlla ci nun su fekkee nun murid yi gore na loolu moo war ndax wa man yu'azzim hurumaatillahi fa huwa xayrun lahu inda rabbih képp koo xam ne yow màggal nga lu yàlla war maal moo gën te fa lu gën gën lay gën muy fa yàlla kon lépp lu bokk ci sëriñ bi rek noo ngi leen di ndax sëriñ Tuubaa def noo féete fépp mënoon mënoon na loo xam ne mënoon ko woon suñu borom li gën a jaxe ci àdduna muy texe nga xam ne suñu borom sax bu koy lim day lima lim ba bëri mën a la àllakum mooy xëy na ngeen texe yaa ayyuha allazina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasilata wa jahidu fi sabilihi laallakum tuflihun yéen ñi gëm yàlla na ngeen ragal yàlla tuut ak wasila te bay ci toolu yàlla bi xëy na ngeen texe kon lu kon suñu borom yëngalul texe te sëriñ bi loo xam ne ni kenn waxalu ko moo ko bind def ne jaw nañ boo leen jëm jëm si man ñu texe lañ li xëy rin taxaa bil muntaqa kullu si saqa wa yalhu bihi nahwi saidun wa zutuqa li xëy rin taxaa bil muntaqa kullu si saqa ويمحو به نحوي سعيد وذو تقى لغير انتحى داونا جëm ci ku dul man داونا jëm ci ku dul may ci ku dul man لغير انتحى بالمنتحى كل ذي سعى ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mi xam ne mooy ku ñu tànn bi képp ku am dara ci texeen daw nga jëm feneen ci ku dul man Sëriñ Tuubaa wa yemxu bii nahwi said wasu tuqaa daw na jëm si man ku am dara ci topp texe rek am jëm si ñëw nga foofu kon bu ñuy noppee ci sëriñ Fallou bii ci nuyoo bi ak jiital bi ndax waxtaan bi dana gàtt ndax julli gi jege na noonu nuyu sëriñ Cheikh Khadim Fall moom sëriñ Khadim Fall mu sëriñ Mor Talla Fall mu Cheikh Ibrahima xam ne moo woote bis bi ànd ko ay taalibeem ak i xaritam ak kon ñoom nag ñoom ñoo ñëwoon xale yi ñoo ñëwoon ci man sàkku ci man ma defal leen ab thème ci bëgg ak jëf ak gëm ak jëfe ndigal ki ko war a joxe ak kan lañ ko war a joxe muy gëm ak bëgg ak jëf loolu man nañ ko tënk ci ay tomb ndax bëgg ak jëf ak gëm sëriñ bi lii nga xam ne mooy kooku wax mu mel nga xam ne kooku wax ne ko doomam mu mel muy almuridu saadiq xam ne yombul wax yi moo gën a yokk doon gi Cheikh Ibrahima Fall doon buri ñu doon ko moom almuridu saadiq dëgg la ndax isil muridu laa yundu abada غير ود الرحمن حيث قصدا إذ المريد لا يريد أبدا murid mooy ki xam ne du bëgg mukk xëy na daf rahmaani ay fasadaa fu mu jublu rek ngërëmul yàlla moo ko tax a jub te Cheikh Ibra Fall kenn natti du toog ne du doon bëgg mbëggam lépp moo doon ngërëmul yàlla kon loolu li muy wax yi di lim melo yi nga xam ne ñooy melo yu murid saadiq daf ne sifaatu saadiqi murid bi ixtisaar arbaatun nazamtuha xawfa ixtiraar ashirk fi mahabbati cheikh abad summa imtisaalu amrihi xaysu warat ndax ne melay murid saadiq sifaatu saadiq yi murid bi ixtisaab meloo murid saadiq ci gàttal arbaatun ñeenti mel rek la nazamtuha xawfa ixtiraan way naa ko bind naa ko ngir ragal ak waru daan ne ashirk fi mahabbati cheikh abad summa imtisaalu amrihi xaysu warat dëgg ci sopp sa sëriñ loolu murid yëpp maaxarin ji defe naa ndax mu xol murid boo xarab Sëriñ Tuubaa la ñuy fekk kon sëriñ bi muy lim yi nga xam ne mooy meloy murid saalih lam ci jiital mooy achet ko fi mahabbati cheikh abad sumam tisalon yi xay su warat ak salabul ixtiyaar ak tarkul ictiraar mooy sopp ci dëgg sopp sa sëriñ ak di jëfe ay ndigalam muy ñëw na ci liggéey doon bëgg ak jëf ak liggéey fu mu rote xay su warat bu ngeen gisee iblis iblis li ko dal lépp musiba bi ko dal lépp yeex a jëfe ndigal moo ko ko dal moo ko teg iblis suñu borom dafa wax lu ne wa iz qulnaa lil malaa'ikati isjudu li aadama fa sajaduu illaa iblisa abaa wastakbara wa kaana minal kaafiriin suñu borom iblis am na ci xeeti malaayka yi ñoo xam ne moo nekkoon seen ji xamoon na ko yàgg ci lawhul mahfuus suñu borom daal ba jëfi jabaram dana tënk aadama dana digal su jot ci moom su boobaa dana am ku lànk dana ko génne soreel ngir ngir naan yàlla dana ko tàkk dana bis bu suñu borom tenee aadama digal malaayka yi ñu sàppe di sujjóor ci aadama moom mu taxaw nga leen di seetlu ki war a bañ kum doon ki war a bañ kum doon bi tax dama leen di wax danger bi nekk ci yéex a jëfe ndigal dafa am ku baax ku ne picc ak ndigal ñoo bokk nañu bañ picc ak ndigal picc boo nee ah rek mu naaw ndigal boo nee ah, ne sëñ ko waay lii muy santaane nangam xam ne ne nangam ndigal boo nee ah rek barke ba dem xoolal dal ne wa sunnaa lil malaayikati isjudu li aadama fa sajudu illa ibliis abaa malaayika yëpp su joor iblis bañ wastakbara wa kaana minal kaafiriin te bokk na ci yi ñu waxoon mooy gëm ak bëgg ak jëf ak ndigal ki ko war a joxe ak ki ko war a joxe ndigal ki ko war a joxe mooy ñu ko sëñ bi waxee kun lada sheyxi ka mayitin wudia na nga mel sa sëriñ mii néew bi ñuy sang xam nga néew bi ñuy sang du lay wër ba leen man nii la dégg rek bàyyi ko nee na murid bi noonu la wala mel ci kanam sëriñ wa kun lana seyxi ka mayitin wudia bayna yaday raasilihi tantafiaa te lii ngeen def jaadu na ndax sëñ bi mag ñi sàkkoon na ci moom qad talabu nazman xawaa taaddabu li yataaddabu sàkkoo jëla ñëwoon na ci moom bi muy taalif na ju xadaay xaaj sàkk ci moom bind leen téere boo xam dañ ci jàng ay teg kon bu ngeen ñëwee ci man ne lii ngeen soxla ku leen ci waxtaan wi ndigal ki ko war a joxe ak ki ko war a joxe ki ko war a joxe mooy euh, euh, murit bi li ko lëkkale ak murit bi li ko lëkkale ak ak sëriñ bi mooy ndigal ndigal rek sax saa bu génnee jëfe ndigal sëriñ bi moo sëriñ bi li ñuy wax taalluqu sëriñ bi bu wax li kulli man taallaqa li kulli man bi taallaqa naja min kadari dunya wa fi yawmi naja képp koo xam ne aju na ci man mucc na ci nax-nax adduna ak àllaaxira yokk mooy lii ndax làmp bi dafa yomb ci suñ ko tëree dafay daanu sëriñ bi mooy lu ko sëriñ bi digal li jafe kay ni moom laa te koo xam ni waroo am dara waroo loo am jox sëriñ ndax loolu mooy bàyyi faal buri sax foo nekk da nga war a nekk exemple nekk ambassadeur sëriñ Tuubaa waruñoo gis ci yow lu ñuy xeebe ci diine ji ak tarixa bi ak yoon bi ndax Cheikh Ibrahima joxe ñu ko noonu keroog bi muy ñëw ci Cheikh Khadim ci Mbàkke euh, ci Mbàkke Kajoor di weeru koor bi bis dibéer ni ko sëñ Moussa ko waxee ne mas nay xibaar ak jëbbuloom day wax ne yàlla bi ko moom moo ne ko Bamba moo la moom raase ko jox ko say taxe mu tëdd guddi listixaar ba mu xëyee ba tisbaar Sëriñ Muxtaar Touré fa jaar leeral nga ko ay taxe maxtaan bi la yooyu yooyu yan ko jëm dakk ku ci buur Cheikh Ibra topp cay fexe ba gis fa Cheikh Adama Gueye sànni mbirum mbirum dal di jëngoy mu war ko Bamba mbër mu rëy sëriñ bi naa ko foofu sëriñ wax ko la fa moom moom wax la fa moom mu xam ne na ko ko moom mu dal di far mbirum joxe ñetti at yooyu nga xam ne nekk na ko sëriñ di ko liggéey am dafa mel ne ni ko sëriñ Moussa Saliou di waxee wa jaa'alnaa ahsanal madiinati rajulan yas'aa waa ji jóge fële ci àll ba dikk ni mel ni daal ndax nit mun nit mun da wax boppam mun loolu nit du ko def maa ngi jiw maa ngi nangam maa loolu nit du ko def sëriñ bi dafa nekkoon euh, kën si boo xam ne trésor boo xam ni ngir ñu jëriñ ci moom faaw am ku ñëw ni nii lañu war a jëriñoo ci moom ba ci ñuy topp sëriñ ba ci murid yëpp sa sa sa njaboot wala say taalibe ñeenteel gën a yor ñu war a ci gënal ndax ñooy gën a nangu ñooy gën a nooy ñu la gën a def te yonent bi nee na ki gën ci nit ñi mooy ki leen di liggéey xadis bu mu dëkkee ñetti at yooyu fa dem boo gisee mu gaaw euh, nga xam ne dafa dikk sax andi fa yoo ñuy wax loi kenn dootu toog a dégg sëriñ bi ci kenn dootu bokk sëriñ bi bi ba ci yooyu xewoon ci Mbàkke ba wala génn ba tax ñu toxoo Mbàkke ñëw Daaru Salaam gis nañ ni moom booba la doon yitteem jëpp mooy jàmm rek ngir la xewoon ci jàkka ja ci waxoon Cheikh ma nangoo te ku la jiite wala bu ku la jiite ma nangam daal di wax lu ñaan ñun ñëpp kenn ko naan lañ ci waxoon xam ne dafa dikk xam ne mas naa wax Cheikh Abdoul Karim Touré Cheikh Khadim na ko ci lu mu la rawee mu ne ko déedéet Mbàkke mu ne kum raw la rawee ci da ko déedéet mu ne ko nangamoon nang loolu du wax mbooloo am na bis mu woo ko moom Cheikh Abdoul Karim ba ñëw muy waxtaan ak moom ci Cheikh Ibrahima Fall waxtaan wu yàgg loo xam ne guddi la lu mu wax bu ca dellu Cheikh Abdou Karim Cheikh bu ko ci bëtu ndeyjoor Cheikh Karim ne ko Abdul Karim loolu moom nga gis Ibrahima bu tedd bi dugal ko ci nopp ndeyjoor Cheikh ko Abdul Karim loolu moom nga dégg na ko bis mu jël ñaari loxo yi dara ko ci bopp bi di yëngal bopp bi naan Ibra Fall de gërëm naa ko Ibra Fall de gërëm naa ko Ibra Fall de gërëm naa ko suñ mbàkk bi sa nekkoon lu mu def mu ne ko daf maa teg fa ma yàlla teg daf maa teg fa ma yàlla teg dafa am dafa am loo xam ne du ay du ay du ay neen du ay waxtaan dafa am bis Cheikh Ibra sëñ Tuubaa woo seen kër yi waxtaan ak moom ci yoonu géej ci yoonu géej guddi mu dégg yëngu bu guddi mu dëggee ba ci biir am yëngu bu dégg sëñ Tuubaa Cheikh Xadim wax seen kër yi xool yóbbu ko mu xool bu dikk ne ko ah Cheikh Ibrahima bu ne ko ubbil ko te rek moom mu dugg bi ñu ubbi seen kër yi rek moo dugg mu dikkum ne ko abdul kiri bi laa woon di ko nekk ci sama diggante masaan ak yoonu ji nee na mu am ah mbàkki loolu ku ne foo a dégg noonu la dara waxee ah mbàkki loolu ku ne foo a dégg ku ne foo a sëñ Tuubaa ne ko Ibra Faal bi ñëwee ba ci ndax xam nga gaal gi yóbbu sëriñ bi dañ mënut a ñëw ci tefes dafa dekkoon ci sori sa gaal bu ndaw lañ ko jëlee ci kii yóbbu ko ci biir moom nag ña ko fekkoon ca gaal googu amoon na taw fekk fekk fa sëñ Tuubaa duggoon ne fekk dafa ci gaal ga ak sëñ ma dumbe sëñ ma dumbe xam naa mu ne ko Ibra Faal bi ma gisee sa jëmm ji di yokk di yokk ba jëm ba ëpp jëmmi doomu aadama loo ci jublu woon mu ne ko Mbàkke booba dama bëggoon a naan géej ba mooy bi am fu jaar ba yóbbu du du du ay wax yuñ foraatu ndax ki ki ko sëñ Tuubaa bi waxal muy ñoom ñett muy Sëñ Abdou Karim Cheikh Ibrahima Sëñ moom yi moo ko nekk li sama wajur ma nekk li moo jur sama baay sëñ Cheikh Touré kon lu wér li ma wax xam naa ko laa ko teg waxuma ko ngir bëgg wala bëgg lu kon mu ne ko bi ma gisee sa jëmm ji di yokk mooy ni bëgg yi def xanaa di yokk ndax ku war a naan géej war ngaa yokk ku bëgg naan géej bu mu war ngaa am leen yeneen jëmm li ma gisee Ibra Fall sa jëmm ji di yokk di yokk ba jëmm doomu aadama loo ci jubloo mu ne ko mbàcc ah boo dama bëggoon a naan géej gi ba du nooy bi am fuñ jaar ba yóbbu la mu ne ko Ibra Fall booba xam nga maa yow nunu def mu ne ko déedéet mu ne ko booba maa yow noo ngi mag mu jëm tool gone doog koo dogale gasum jàkk mag mu jëm tool gone doog koo dogale gasum jàkk sëñ Abdou Karim ñetti la ko sëñ Mourou Moustapha Fall bàyyi suñu Cheikh Gànnaar bi suñ mënu saafal ne ko ah bàyyi kon foofu la si yëpp gërëm ne ko fi la ko ñëpp toll fi la ko ñëpp toll sëriñ bi lépp mooma fu dara nekk bu ko ñoo ne yëgee ak buñ ko yëgut buñ ko xamee ak buñ ko yëgut mooma mas naa wax sëñ moo ak solo gis mu koy sotti muy jàpp daal sëñ loxoom bu ko moor loxo suuf si boo ëllëgee comme comme sëñ bu ne da ngeen doo digg fanaanee fan ne. mii mu suñ Abdou Khadim mu suñ moo taala ndax moom day mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima gépp gërëm nañ ko ndax dafa tegu ci aw yoon aw yoon nag ku ci tege dangay dox te bañ a gestu kon ñu ngi koy ñaan yàlla yàggal ko fi lii nga xam ne si mu ngi koy def ci àdduna bépp di ko yaatal ñu ngi ñaan fépp fu mu bëgg mu àgg fa rek yàlla fa àgg ci barkeb sëriñ Fàllu mii toog ndax sëriñ Touba sëriñ Touba rek ndax am na loo xam ne ku ne dégg na sëriñ Basiiru bi nga xam ne si nekk na Saalum nga gis ne wax nañ ne am na ci dong yi ñoo xam ne ñoo dajale seen i àddee di ko yët sëriñ Touba ba nu egsee tamit la leen sëñ bi wax leer na dañ leen xam ne na ngeen delluwaat ca Basiiru ndax mooy man te maay moom bu leen ko séenu gis leen ko kon loolee la wax ci doomam jii di sëriñ Fallou bu rek nga xam ne dañoo war a am yëg-yëgub ne buñ gisee képp koo xam ne sëriñ Touba moo jur sa waajur wala mu jur sa maam wala ngay rakkam wala foo mën a bokk te sant Mbàkke rawatina ñoom ñii war nañoo yëg ne tey sëriñ Sidi Muxtaar Mbàkke moo nekk si jataay bi rawatina nag mu ànd ak njabootu boppam gii nga xam ne ay njabootu sëriñ Sohaibou lañ ak njabootu sëriñ Abdoul Ahad ak kër sëñ Basiru kër maam Cerno Birahim maam Seex si sëñ Masamba ñëpp a ngi fi kon li ñuy def ñu ngi sant ñëpp di sant tamit suñu bokki bopp yi nga xam ne wax nañ ko mu sëriñ Abdou Sakkoor moom sëriñ Fasan ñu tuddee ko sama waajur ak sëriñ Seex Fall moom sëriñ Moussa Fall ñu tuddee bàyyi moom kon ak sëriñ Aliou Fall mii nga xam ne moom it naka noonu doomi sëriñ Fall mu sëriñ Aliou Mboor kon sëriñ bi daal muy sant ñëpp di ñaan ci barkeb sëriñ Fall mii ku fi teew yàlla na suñ borom faj say aajo kon ñu ngi sant bu baax di gërëm ñëpp di xam ne nag ku am gan da koy teral man de murid li ma ci xam mooy joxe addiya kon nag li may wax rek ndax duñ fi nekk di toog jataay ba jóge fi suñ jógee jataay bi kenn ku yéen daal ne war nañoo wax lii wala wala nañoo doxee nii murid moom bu jàngee alxuraan jàng xasida tudd yàlla joxe addiya wàcc na loolu mooy faj jàngoroy murid murit moom bu joxe àddee ma ngi naan garab loolu mooy faj aajo murit hmm. kon ñun ñëpp nañ ko commencé def jërë ngeen jëf ñu ngi jóg lu baax ci kàddu yi dañoon jot li cant rek di leen xamal ne sëñ bi li mu nekk dajee jot ndigal ci sëriñ Cheikh Jëmbu Fall kon jërë ngeen jëf kon murit dañ leen def loolu asalaamaaleykum sëñ bi Mbàkke maa ngi jéggalu kàddu yi ma yëkkati maa ngi jégalu yàlla sama boroom jégalu sëriñ Touba ak Cheikh Ibrahima di leen jégalu kàddu yi may yëkkati nag sama jëmm taxul waaye seen jëmm yu tedd yee tax ñëw gi nga fi ñëw di Serigne Touba dafa rëy ci nun lool Mbacké bis bi nuy wooteel Cheikh Ibrahima bu njëkkee ba Serigne Touba ñëw ci war na noo yàlla sun boroom dolli julli ci yonante bi dolli santaat Serigne Touba bu baax ak Cheikh rek te xam ne bu doon sàkku yàlla sunu boroom ma mm-hmm. mm-hmm. noo ngi sant bu baax di xam ne bu doon rëbb sooyunu ci ñëw gii nga fi ñëw lu rëy ci nun la maa ngi ciy sant bu baax di ñaan yàlla sama boroom defal la fan wu gudd wa ànd ko gu wér di la jottali nag cantuk bokk yi tàmbalee ci sëñ Moustapha mii nga xam ne mooy moom sëñ Abdou Sakkoor mu maam seex Ibra ak euh, magam yi nga xam ne moom la fi nekkal ak ay doomam ku mel sëñ Cheikh Bintu meek sëñ Cheikh Khady ak sëñ Aliou sunu waajur yi ku mel ni sëñ Cheikh Gànnaar me ak sëñ Abdou Sakkoor ak sëñ Aliou meek sunu rakk yi fi ne maa ngi lay nuyu ci seen tur ñoom ñëpp di la jottali nag cantuk waa dëkk bi. daa am loo xam ne mënalul leen ko te yéene leen ko ndax danoo nekk Sénégal am pas-pasub liggéeyal Serigne Touba ak Cheikh Ibra ci jaami yàlla yi nga xam ne yàlla sunu boroom dogal nañu cëroo maam Cheikh Ibra di tari am njàng di tarim leem te jàngunu ko kuy tari loo jàngut gàg dala ca yomb loola nag lan bëggoon di leeral ci nit ñi ñu xam ne Serigne Touba ak Cheikh Ibra xettali jaam yi teg leen ci siraatal mustaqim rekk moo leen fi indi ñu bëgg nit ñëpp tënku ci sell ak njub ak mbaax loolu ñu jéem a jàngale nag te mokkaluñ ko suñ ci nekkee ba nga fekk nu ci sunum xel dana dal kon nag ci kaw turu njabootu Seex Ibra gii fi nekk ak njabootu sëriñ Touba gii nga fi àndal ñu soxna May ak soxna Maam Jaara ak soxna moomi mais moom sañ Seex Xadi ak mbooleem njabootu Serigne Touba gi fi nekk ñëpp. noo ngi sàkku ci yéen mbokki taalib yi par Paris di góor ñi di jigéen ñi di daayira yi góor yi di daayira yi jigéen ñi di bàyyi faale yi di daayira yi soxna jaare yeeg soxna yi fi nekk noo ngi lay xamal ne leen seenu cant amunu ko seenu payit amunu ko waaye yow mii sëriñ Tuubaa am nga ko fajal seeni aajo ñu am tawféex defaruk àdduna ak àlaaxira te yàlla sunu borom xiir nu ci ñu doon ay taalibe yuy liggéeyal sëriñ Tuubaa te lépp luñ liggéeyal sëriñ Tuubaa sama borom nangul na ko te dencal na ko fa yàq àggul ci barkeb Sëriñ Tuubaa ak maam Cheikh Ibra loolu moom mooy kàddu yi may doon yëkkati ngir bëgg ngeen dimbalenu nu amuk defar goo xam ne dara yàqul dootu nekk ci nun waaye yëkkati kàddu ci sunu kanam warunu bi sëñ Moustapha waxee jeex na tàkk waxoon naa sëñ ab Ablaye Ndiaye mu joxeel ma ak cant ak ngërëm waaye damay yéene waa dëkk bi ak defaru te xam ne soo leen ko sàkkulee danañ ko am ma bëgg nga sàkkul leen defarug àdduna ak àllaaxira ak mucc gu ànd ak mucc le ñoom ñëpp seeni njaboot defaru te bañ a yàqu ci doole Serigne Touba ak Cheikh Ibra sàll sama borom nag nuñ tam noo ngi ñaan mu yàggal la lool defal la fa nu gudd ànd ak wér ci barki maam Cheikh Ibrahima Fall baax na Mbàkke jërëjëf بخدمة وأسأل الله وفاد واحد الله على عكس الكتاب بخدمة للمصطفى بالي سواب بارك الله jërëjëf jërëjëf suñu xol seet bu baax a baax a baax suñu xol seet na bu baax di teew gi bég naa ci lool te xam nañ ne Sëriñ Tuubaa it bég na ci Cheikh Ibrahima it bég na ci bu baax jërëjëf Touré Touré Touré Touré xanaa kee doon wax sa mbokk jërëjëf barkalla suñu na bu baax sëñ Cheikh suñu xel seet na bu baax ngi nuyu sa bokk yi ngeen fi dajal yépp te di leen gën a soññ ci lii ngeen di def eh, sant Cheikh moom mooy sant sëñ Touba seen diggante dafa jege amul ab teqale kon nag rawatina fii ngeen koy defe ngeen seere ne sëñ bi bëgg na ci bu baax a baax ngeen ci ñaanal tawféex li nga wax it ci bokki taalibe yi yépp gis nañ ko yàlla ak jëmbi sëñ tubaa yàlla nañ ko yàlla defal ci barke sëñ tubaa dañ ci rafet njort bu baax ndax pas-pas rekk leen yëkkati aku bëgg te bëgg ak pas-pas dafa am doole ci yoonu murit Seex Ibra ba ko sëriñ bi laajee daf ko ne lu mën a xew naa lay gën a bëgg yonent bi dafa wax ne almar u mahaman ahaba kon nag loolu lu rëy la cër bu nit di am ci nit rek bala ma ko mën a am ak bëgg day jiitu gis nga sarti murit saadix boobu li ci jiitu asidqu fi mahabbati seyxi balaa imtisaalul awaamiri wajtinaabu nawaahi di mën a am almahabatu day am ba noppi kon kenn mënta def loolu ak yee ca topp te bëgg ku wére wére wér amul loolu nag la yàlla defal Cheikh Ibra ba mu am cër bi mu am ci sëriñ bi kon nag ñu ngi leen di sant bu baax ci taxawal yi ngeen di taxawal bis yu mel nii ak bis ba ngeen di defar ca Ndakaaru ak bis yépp yi ngeen di def te di ko rafet lu bu baax dana boole ak bokk dana boole jullit yi dana boole taalibe yi ndax ñii ma fi gis ñuy sunuy mbokk ndax sëriñ bi moom ñim àndal rek la ñooy mbokkam daana wax ne ñi ma njëkk àndal ku leen jëm sama dara tey naaj kon yéen yéenay sunuy mbokk te rafetal ngeen ko bu baax a baax a baax amul lenn loo xam ne li bu Seex Ibra teewoon da ngeen ca deltu gannaaw ñu ngi leen di ñaanal rek ak ñi ngeen àndal ñëpp ak ngi leen ci jàppale yàlla defal leen tawfeex li ngeen di wut li ngeen di yaakaar li ngeen di bëgg ci sëriñ bi lépp yàlla jàppandal ko te defal leen ci ndam bu baax a baax a baax ci barke Sëñ Tuubaa barke Seex Ibra jërë ngeen jëf العزيز عن تجور يسنونني وقت ربي لديما أسير اللوم الكل التي هي نور بي سرت من ربي لربي موعدا واو للنسارى روح التمور هو الكنز والكبريت وسعد ليونا بي تنتفي نار هدى وسبور كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للخديم يمير كتاب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 ومنه تفريج الكوب ألتجي أكرم به ربا يخون ما